asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajuma fukki fan ak ñaar ci rajab muy weeru ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa ñetti fan ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett fukki fan ñaar ci weeru rajab dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon ci ajuma ja rafetul ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma saxal ci ngëm yàlla na nga ma def ma nekk ku jub tey jubale allahuma sabit nii واجعلني هاديا مهديا اللهم sabitni waj'alni hadiyan mahdiya xadiisu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonente yépp maa ci ëpp ñu ma topp ëllëg bis pénc ba te njëkk fëgg bunt bi muslim nettali na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa ana aksarul anbiyaai tabaan yowma alqiyaama wa ana awalu man yaqra'u baab aljanna rawaahu muslim waxtu julli yi suba waxtaan dana tàbbi six heures dix-huit juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñett tisbaar treize heures quarante-sept benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñaar takkusaan seize heures quarante-sept ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñaar timis dix-neuf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 di so 19 heures 5 juróom-ñaari waxtu yu tegal juróomi simili yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin